dal nag ak jàmm mbokku internet yi mbirum Iba Thiam ka ñu jàpp ne moom moo leen doon jox dorog ba yoon teg na ko loxo lu bees am na ci dossier pa Iba Thiam mi nga xamante ni dañu ko fekkoon mu faatu ci ab appartement foofu le ca Almadi te la ko waraloon mooy jëfandikoo gu ëpp ci wàllu mu dorog ka ñu jàpp nag ne moom moo leen doon jaay googu la dorog yoon teg na ko loxo waajaa ngi wuyoo ci turu David Dieng waaye ñu gën koo xam ci Pablo Didier moom nag waa gendarmerie bu section de recherche jot nañ ko teg loxo bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu tukkee ci waa l'observateur moom nag ko jàpp bésib gaawo toll ko fanweeru fan ci weeru mai gi ñu génn ca cité biyaay gi ca waxtu woo xamante daanaka mu ngi doon jaayi drog ñeneen daanaka sax mën nañu wax ne dañu ko jàpp loxo ci poos moom nag mujj nañu ko defeere ginnaaw si nga xamante ne doon nañ ko téye ci garde à vue foofu la ca poste ba ànd ak loolu bi waa wëy l'enquêteur yi demee ca appartement ba nga xamante ne fa la nekk fekk nañ fa ci lu tolloo juróom ñaari doñ yëpp dorog ay lam yi nga xamante ne moom la ñuy découper loolu la di dorog bi ay sachet plastique ak scotch yi nga xamante daanaka moom lañ lañu daan ëmbee dorog bi waaye itam fekk nañu foofu alal ju bari ci ay xaalis yu wuute dollar euro ak CFA bu ñu sukkandikoo ci xibaar ñi njëkkoon a jot ci mbir mi ki lee di Pablo mën nañ jàpp ne dafa bokk ci kuréel gu mag bu yëngu ci wàllu njaayum dorog te boobu lee kuréel daanaka sax du rek Sénégal la yem génn na ba ci bitim réew Guinée Bissau Nigéria Benin ak yeneen i dëkk ñu ngi fu ne ci li nga xamante ne mooy seen liggéey bii di tasaare drogue du yàgg fenn dina weer yu nekk mu arrangé ngir rek fexe ba kenn du ko teg bët mbaa di ko teg loxo lii lañ leen indi la gumb ci mbir mi dañ ko topp ngir indi leen ci yeneen leeral Tactic TV mu ngi leen di jaajëf